problème donc loolu nag la ya pas de euh, polémique bu ñuy euh, xuusandi pour ñuy laajte ci commentaire yi pour pourquoi Coumba Gawlo c'est juste ça alors ñu jàll ci leneen loo xamante ne bi cette fois-ci on va parler de toute autre chose Aziz Ndiaye mariage bu polémique ba ci gàmmo gi gàmmo gi site internet yi dem yépp kër Aziz lañu ñu dal ba ñu fa demee nekkee wuñ fa lu dul Aziz ñaareel ñaareelu Aziz Aziz ñaareel di ko laaj laaj yoo xamante ne bii ba ci gàmm gi doomu Aziz Ndiaye ñu jël ko di ko interviewé di ko sonal quand même ak ay question wu que naka nga gisee sa tante bi donc ba xale bi dafa mujjee énervé est-ce que tamit à un moment donné ñun suñu liggéey ëppul site internet yi ci pour ñenn ñi koy def ak aussi fekk nit ki ba ci gàmm wax dëgg yàlla Aziz mu ngi mel ni moom amul droit takk ñaareel mariage bi bëri na trop polémique. waaw xam nga man affaire Aziz Ndiaye. ku si nekk mënoon na si maandu quoi. Hmm. lu dëgg parce que moom muy takk sax wax wax naa ko fii daf cee maandu. Hmm. parce que gisuloo moom mu publier ko si SATM gisoo ko mu dugal ko si kontam gisoo mu wan ko kenn jublu ci gàmmu gi. Hmm. mais affaire de gàmmu dafa am beneen méthode bu ci nekk ak beneen jox doxalin. parce que Aziz dafa ñëw si gàmm gi di gàmm mais Aziz ñan la fa woo ñan ñan la woo. ñëpp. Hmm? célébrité ci réew mi ñëpp la woo. non waa xam nga tey ma wax la benn affaire tey gàmm su fekkoon ne gàmm gi euh, man bu doon man maay Aziz bu ma demee defar sama kër comme noonu ma ko def dinaa ko organiser ba ba nga xam ne yow doo fa tala munoo fa jël image parce que boo indee jàngkat bu wàcc jàngkat yéeg defe naa internet du fa du fa du fa du fa neexle parce que ñoom yuuxu woykat yi intéressé wu leen du dëgg. mais bu fekkante ni foofu dafa silence nga indi fa genre jimboori geeg ñoom seen karab-karab jooju noonu xam nga maa àdduna yi daje fa yaa ngi dégg bamba maa adduna yi fu ñu daje ñu laaj leen affaire àdduna waaw dëgg yàlla waaw dam lay wax rek ba pare célébrité yi fa daje ñoo fa indi internet yi inter gis nga weñ du biiw lu dul soow wala wala wala wala mango yaa ngi dégg internet bi ñoom suñu classe gii la ñuy bañ fu ñu gis gàddu caméra ñëw fa léegi boo ñu fa dajalee dix yaa leen woo waxal rek yaa leen woo mais tey boo tegoon sa kër tey nga installé ko mu teg nga defar benn genre benn genre fu jàngkat yi di kii nga woo fa jàngkat yi jàngkat bu wàcc moroomam yéeg bu wàcc moroomam yéeg bu wàcc moroomam yéeg yaa ngi dégg est-ce que nit dina fa perte bay pëtët am na wala amut du dégg parce que la tey ñuy laaj ñaareel diw sa ñaareel bi sa ñetteel sa tante sa lii sa laa xoola loolu yow yaa leen ko may am na wala amul yaa leen ko may Aziz Ndiaye bu takkee jabar war na takk jabar am na wala amul mm-hmm. du dëgg war na takk jabar mais internet bi tamit bamba seen liggéey lañuy def weñ dee na ci soow mais du xarom da koo bëgg rek image la ñuy wër ak luñ dugal bu ñu bu leen bu leen leeroon ni bu ñu demee kër Aziz Ndiaye son ba du baax munoo faa am image bu jekk duñ fa taxaw du dëgg gaa yooyu tamit di def màggal yeeg gàmm yi yor seeni nag ak seeni gëléem seeni palaat woo ñenn ñi ñooñu tamit ñoo bëgg ñu wane leen su xam ndax ñoom palaat du wax boo ko dugalee ci internet du dox soxlawuñu palaat soxlawuñu nag nag tamit du wax. gëléem du wax. AGS amul tamit bernde woo woo ay nitam. dama ne am na droit bernde parce que bërki démb ñu ma laajee dama ne. dañ ne waaw Aziz Ndiaye dafa takk jabar ki mu takk moom moo ko moom moo ko mag ma ne Aziz Ndiaye si boppam li mu def rafet na parce que am na paa yoo xam ne ñu ngi si auberge di tëddee xale yi. moom defu ko dafa takk ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad def na lu rafet ba pare bàyyi gi mu bàyyi ëffal rek loolu xanaa ku ki bàyyi ëffal kay bàyyi na àddina ëffal ay nit ñuy xeex mbër làmb naan combat bi gën a jafe da ngay gis promoteur combat bi gën a jafe maa ko décroché ak ëppal rek nga solu ci ba jekk ñëw toog bi mu ko bàyyee la nit ñi war a toog affaire àddina ñu génnee ko ci boppam. parce que moom dëgg-dëgg bana àddina àddina nag moo ko bawut mais pour man laa wax organisation bi ma gis palaat yeeg loolu ñu rangale yépp teg ko fa yaa ngi dégg ak ñañ fa woo ñooñu boo leen woowee nag wax dëgg yàlla internet bi day ñëw. man boo ma joxoon foofu ma organiser ko benn internet du fa jaar. ah fooy amee son. ñoo koy organiser ayu jàngkat bu wàcc jàngkat yéeg. fooy amee son waxa rek fan ngay jëlee son yow tey jii ñoom internet bi noonu la ñuy def internet bi lépp lu leen waay wax da nga leen di tooñ parce que dama ni laajaguñ fa nit mu noppi tëj làmmiñam waxal ku ñu laaj wax nga tey jii boo ñëwoon si doomu Aziz Ndiaye joxoj ko affaire bi ko laaj mu ne pat. mais xaar xaar patt dinañ ko dugal waxal te ba pare ma wax la dara site internet duñ la gis nii rek taal seen caméra te am te wanoo leen kanam gu guñ koy taalee baadoo ñu noonu nag wax dëgg yàlla baadoo ñu noonu xool la nii rek xoola ñoom am nañ fulla ju toll ni ñu la jubee gis nga def sa kanam yenn yi du ñu taal seen caméra yi wax dëgg yàlla nii lañ nañ nañ leen ko waxal parce que man ñi may jël ci bëri na mais léeg-léeg damay seetlu nit nit day ñëw si man sax bëgg ma jël interview man maa def benn genre ñàngar rek ma gis ñoom dañuy rus ni yàgg te seen caméra yi di ma xool comprendre nga li ma la wax kon te ñu tëb taal caméra bi di la ko tiimale yaa leen woy yaa leen wan waneel ma sama sañse xam nga gàmm yi dafa am gàmm yoo xam ne gàmm wanante sañse dafa am am na ñoo xam ne gàmmuwuñu dañuy wanante sañse ba jeex nga sa walis jeex sama walis jeex ñu ñibbi yaa ngi dégg ñooñu nag la site internet bi di wër ah yow tam na alors internet defuñu dara ñaareel bee fa xew duñ ko xalaat te ñaareel bi tiktokeur la duñ duñ ñëw yow tamit nag mbokki tiktokeur yi ñëw waxal rek ah. yaa woote boo takkee tiktokeur tiktokeur yi ñëw parce que yonent bi nee na woon ñi bokk teen ñooy laxasoo buum tiktokeur ñëw na tëggkati làmb yi ñëw mbëru làmb yi ñëw jim genre jimboor yi waxkat yi ñëw mais Bamba fan nga bëgg internet bi dem fa yokk nañ ko coow ah waa ah moo fa indi ay coowkat ñu ñëw coow leen waaw alors Ngor est-ce que tu d'accord avec Jimbo que la faute c'est Aziz quand même bu fekkoon ne teg na fa ay jàngkat ñuy jàng euh, wala ci site internet yi ñoom ci moom ñoo war a xoolaat seen liggéey euh, xool question yi ñuy poser ak. non site internet yi leen ndax Aziz dafa woote rek. Hmm. man Aziz lu mu bëgg mooy dafa woote gàmmu ñëw leen ñu sargal te ku ne gàmmu wax moo manger boire wax ay dressé woo jàngkat yi ñu ñëw taggkat yu yeneen bi ñëw nga woo say nit. Aziz ñan ñooy nitam waa coow bis bi rek ñoom ñooy nitam. Oh. macha allah ak tàggkatu yeneen bi gàmm la woote te ku woo ay nit da nga dressé. danga leen jox manger boire danga dressé danga toog. Oh. ñi nga xam ne ñoom ñooy journaliste yi yor seeni micro. li ñuy wax naan jaay laa la fa ca rajo ñore. Hmm. yóbbante nag kuy tukki. Hmm. waaye jaay laa la fa ca rajo ñore. la moo tax ma ne jaay laa la fa ca rajo ñore boo ñëwee ci bisu nabi nga ñëw ba ci jumaa ji ba ci dëkk Serigne Babacar Sy bi nga ñëw ba ci suufu El Hadj Malick bi ñëwoo waxtaanee woo Serigne euh, Serigne. Euh, Euh, maa ñëwaat Serigne Touba sax mais benn la waxtaanoo Alaaji Malick waxtaane woo Serigne Babacar Sy. Mhm. laajoo Aziz ak waa këram digganteem ak Serigne Babacar Sy. laajoo ko digganteem ak euh, Seydi Hadji Malick ko laajoo ko digganteem ak Al Amin waxoo ci gàmmu jóge guddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bii tuggoo ci waxoo ci nga ñëw di profité ci célébrité yi nga fa fekk lan moo doon wax ji koo tàllal micro laaj ko sa digganteek ak Aziz mu wax ci ba pare nga laaj ko digganteem ak sëriñ Babacar si wala nga laaj ko sa digganteeg waa Tiwaawoon loolu moom mooy wax ji dafa am loo xam ne fa lañ ko war a waxee mais mënoo tàllal nit gi di wut boo xam ne xeexoon na daaw wala xeexoon na ci benn télé wala dàqoon nañ fa nga ñëw ci biir gàmmu gi di lijjanti loolu ndax ay télé beeg kii wala dàq ko kële Aziz Ndiaye nag mi nga xam ne moo takk ñaareelam takk li nga xam ne mooy soxnaam que loolu sax kaa euh, mais loolu du kaa Aziz Ndiaye am na droit xool te buñ ñu doon Aziz dañ koo bett ci hôtel nangam wala Aziz Ndiaye dañ koo bett kër xale nangam muy defante lu ñaaw wala dokk nañ ko muy doxaar comme ni ñuy bettee kilifa yu bëri ci réew mi ñuy gaare seeni oto ci ay ci ay koo yeeg ay bóorum géej boobaa Aziz Ndiaye yat bi mën na koo dal mais Aziz dafa takk. te labat na xale bu baax rabat na xale bu réglé boo xam ne kenn dëgg koo mësu koo dégg ci lu ñaaw ndax tey ji xale bi bu doon defkatu lu ñaaw la tey bu ñu takkee dañ koy génneel ay vidéo ndax fii réew mi tey kuñ fi takk ngay def katu lu ñaaw wala nga daan def dara dañ lay génneel say vidéo waxal la lu ñaaw mais xale bi zéro faute nga tiim ki nga xam ne mooy doomam nga naan ko ay belle-mère kooku xamal leen la carrément man aw ma belle-mère yaay laa am te elle bien mais lan moo indi nga jàkkaarloog doomu Aziz Ndiaye laajoo ko nga laaj ko sa digganteek sa papa laaj ko nan ngeen de nan ngeen di toppatoo gan yi ak gàmmu daaw ak bu gàmm gàmm ren nan ngeen ko wane gisee nan ngeen di toppatoo seeni gan mais nga koy laaj sa papa ay kii mu takk ak kee mu takk loolu mais xale bi am na fulla am na fay fayda ndax nee na loolu du ci wax mais dafa am lenn loo xam ne ne dafa rafetul nit ki foo dem. boo demee Touba wax laajal ci Serigne Touba nga laaj ci màggal gi nga laaj ci ki nga fekk si comportement ak ba relation ngeen am nan nga gisee màggal gi nan nga gisee ci Serigne Touba boo demee nag ci guddi yanant bi waxtaanee la yanant bi yow sa dig sa ba relation nga am ba def déplacement ak dérangement daal di ñëw ci guddi yanant bi te yaa ngi ñëw kër Aziz Ndiaye Aziz Ale Ndiaye ku ko xam ci berne ku ko xam ci leneen leneen nga dugg ci sujet boobu mais dañoo mën hors sujet dañoo mën contre temps tey jii benn Alima Ndione nga xam ne xamoon nga ko nangam da boo fa tasanteek moom da koy jéem a laaj ay affaire boo dajee woon tey jii benn ngóone tey jii biir Tiwaawa na nga koy laaj sa digganteeg sëriñ cuuj ma cuuj ma nga xulooloo nangama nanga parce que dañuy bàyyi ba occasion yu mel noonu ñu jëm ciy ñëw di ci profité tey boo tasanteeg ju bóori laajoo ko lool de leneen nga koy laaj tey buñ tasantoo Bamba sax leneen lañ koy laaj dafa am yenn yoo xam ne dafa rafetul ñiy yor ñi yor ay ay ay soit soi-disant journalistes yi dañ fi bëri ñoo xam ne jànguñu amuñu benn formation ndax bu njëkk ba ñi doon def journaliste dañ leen doon tànn dañ doon caytu ba génn yor seen i lijaasa ñëw toog def li nga xam ne moom mooy journalisme mais léegi nag fu mu toll nii golo gu jóg yor sa micro lan ngay wax gros mot gros mot boobu lan nga ci wut xaamal laaj ko benn affaire bu saf wala affaire bu metti mais journaliste dafa am a am respect ci doomu aadama xool question yoo xam ne yow ku la ko tontoon ku la ko laajoon tey nga xaru kon yow doo ko laaj nit ki mais da ngay fekk nit ki ci mbooloo moo xam ne laajoo ko li ñu ko war a laaj mais toujours dañuy jéem a laaj nit ki loo xam ne pour après buzz dañ fii ñu ne journaliste bi laaj na ko dara laaj na ko lii mais jëlal numéro kooku ne ko sax dama laa soxla pour interview su passé damaa bëgg a ñëw sa kër wala ma invité la mais soi-disant journaliste yi nga xam ne moo ñoo mën a yem jànguñu amuñu ñoom daal mën nañu wax ju rëy rek ñu yabal leen na jox leen caméra ak micro demal nga laaj nit ñi di dugg ci vie privée jàmbur yi di dugg ci vie vie sentimentale jàmbur yi te nit ki vie privée ak nit ki vie profession du benn laaj ko ci profession bi muy liggéey mais dañuy dem di xóotal di la laaj yoo xam ne tey ji ku ko dégg rek dañ lay sasine marine laa ba ba nga xam ne da ngay bëgg sax gaañu ngay bëgg décédé dafa am leen yoo xam ne dafa rafetul dañuy bàyyi di fekk nit ñi ci mbooloo yi nga xam ne ne foofu koo fekk rek Seydina Mouhamed da nga war a waxtaane borom barrière or bi góor gi ci Medina nga laaj Aziz digganteem ak Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam laaj ko digganteem ak Alaaji Malick laaj ko diggante bi ñiy def déplacement ak dérangement mais fekk nit ki ci ay gàmmu di dugg nit ñi ci vie privée sa yaay ak sa tanta sa papa ki mu takk ak ma naa dafa am yenn yoo xam ne rafetul mm-hmm. te Miss Ndiaye tamit gis nañ ci mu tax taxawaay bu am solo nekk ci ginnaaw borom këram di dressé table yi comme ni mu ko doon def ñun daaw fa la ñu daloon macha allah di ziara tamit jaaj naar bi nga xam ne foofu la nekk macha allah ak waa Feeling Dakar groupe bi mu fi nekkal ñoom noo rëy nii ñoom ñëpp def nañ fa tamit liggéey bu am solo solo solo nañu bàyyi di fekk nit ñi ci bërëb yu mel noonu di ci profité merci beaucoup euh, Bamba xam nga lan laa siy sànni xam nga gàmm mhm. gàmm mhm. ba ci joxe paas amee la yàqu te nuyoo. xaaral rek xaaral ba pare euh, euh, euh, ma wax la benn affaire. tey comme ngoone li mu wax nga fekk nit kër kër Aziz Ndiaye naan ko sa digganteek sëñ sëñ Babacar te xabru sëñ Babacar ne na le kër sëñ Babacar nekk ne fekkoo ko kër sëñ Babacar di ko laaj sëñ Babacar. mun na nekk ah, xaaral xaaral rek non dama da xaaral dama lay tàqal leer rek. parce que xam nga tey ñun suñu gàmm yi ak suñu màggal yi dañ cee dugal loo xam ne bàyyiwuñ ci xel xoola am na ñu xam ne fu mu toll ni kër Aziz Ndiaye bi bi bi bi gàmm gi jotee am na ñu fa am émission làmb am na ñu fa am émission musique am na ñu fa am émission naka la tuddati influenceur am na ñu si am émission émission politique waa lu tax gars yi dugg fa am émission yooyu yëpp te tey jii gars yi di wut di wut ay image balaa ñoo am jimbóori am ngóone am bamba am am maaraañas am nangam nangam dañuy doxoo dox paas a paas bay bëgg a dee léegi nga ñëw fekk leen kër asi ñu def fa benn dànk léegi ma wax la benn affaire tey lenn naa la ko wax boo duggee armel armel lan la sa xel di joxe sa xel day dem ci dee ku la fa fekkoon di la interroger est-ce que di nga tala wax boo duggee ci hôpital lan la sa xel di dem est-ce que nit dina la fay fekk di interroger fi nga dugg fi fi gisal da xoola fenn araamul mais li ngay def yow ci la lag ñooñu di fekk si. Hmm. nañ waxante li fi nekk. xam nga tey ma wax la benn affaire am na ñu bëri tey ni nga leen gis nga leen Touba ñu dugal seen vidéo gisaan nga leen Tiwaawan ñu dugal seen vidéo kër diw laay dal. Hmm. diwa ma woo yow nañ dali foofu allo foo nekk man mii. nit woo na ba sonn foo nekk maa ngi nii waa ma yónnee la paas ma ne la non yónnee paas bi lan la. waxal nga pare ma wax la benn affaire gàmm day am ba gàmmu jeex doo xam sëñ bi dooma doomi sëñ bi sax ñi ma ngaa dajeeg moom mbéj ko ma benn jimbóor yi ñëw ci gàmm gi xoola benn jimbóor yi ñëw ci gàmm gi mel ni ku sant si benn jimbóor yi ñëw ci Touba mel ni ku sant Mbàkke kan moo ko tax kan moo tax sit internet bi booy kër sëñ bi xam ngeen ko sëñ bi sax gis nga sëñ bi duñ ko jël duñu lijjandi affaire am dañuy defa ne du dox boo vidéo am du dox lañu lay wax sëñ bi du dox kër diwul ay nekk foofoo gën a doxle patron presse yi sax wala tele yi tele yi booy da ngaa defa ne presse en ligne bi doom ñoo ñoo nekkoon kër Aziz Ndiaye tele yi sax ñu ngi woon kër Aziz Ndiaye du xool am na ko xam ni Aziz jël na Aziz muy wax ci tele yi seetaan naa ko waa yow mais fu ñuy përtee doo fa pëtat. gis naa fa ku fa jël Balla Gaye muy wax ci combat Modou Lo. ci combat Modou ah, yow jàmbaar xam nga yow ñii sawaay xam nga gàmm yi nañ ko xoolaat. alaaji Malick ni mu daan defee gàmm ak nii ñuy defee gàmm. xoola yéen bi ngeen ñëwee ren yéen site internet yëpp xam nga si lan ngeen waroon a nekk tey ndax ni sëriñ bi sampe woon gàmm gi ak gàmm gi ni muy déroulé ndax benn la. mais tey actualité bi lan la loo ma laaj nii diw mu wax na fa lii wax na fa lii ñu teg ba am na fa ñu xam ni dañ na dañu waroon nañ taxaw si internet bi daan ni ah nii ñuy defee gàmmu de waruñu ko def ba pare ma jox la benn technique est-ce que xam nga alaaji Malick fu mu mas a tabaxal jumaa est-ce que xam nga bu daan defar jumaa lu tax muy defar zawiyee ci wet bi xam nga ko ah Bamba xoola dafa bañoon ñu jax ñu jaxase tariixa bi ak ak lislaam jàkka ji lay bañ gaa yi gaa yi kii ni mu koy waxee Sonko liige ko jàkka ji lay bañ ñu tiijaanee ko léegi daf waaw léegi xoola jàkka ji fa la ñuy jullee ba pare génn dem ci zawiye bay wasifa bu fekkee bokkoo ci tarixa bi nga toog ci jàkka ji mais tey jàkka yi ngay gis gaa yi lal ko moo xam bokk nga ci bokkoo ci di di di di def li ñuy def li léegi ndax war nañu jaxase affaireu diine ak affaireu yàlla alaaj xoola wa man kay preuve la foo mës a gis mu defar fa jumaa defar na zawye ci wetam waa léegi dama lay wax benn affaire segam alaaji Malick moomu moo fi bàyyee noonu gàmm gi gàmm gi nga gis nii boo bu ñu waxantee li fi nekk alaaji Malick sa maam la sama maam la man maam yi ngóone la maamu ñëpp la gàmm gi ah, kii nan la tuddati eh, Bamba mhm. nañ ko wax te dee est-ce que gàmm gi niñ doon gàmmee noonu la ñuy continuer di gàmme ba léegi événement yi ndax noonu lay demee ba léegi xoola mhm. Bamba demeetul noonu ba pare tey da ngay gis yow nga toog ñu war la wax yàllaak ak yonent bi yonent bi ja judduw yonent bi lañ la daan wax bi mu juddoo fan la juddoo Amina mu yaayam fan la ko amee Abdallah fan la fan la génne àddina yonent bi ñaata nit ñoo ko yore affaire yooyu léegi loolu amatu fa lan moo indi yow nga ñëw di ma laaj li nga ma laaj sànq naan ma diw dafa woy diw diw kii diw diw doxe fa feebar yow yaa ma ko wax nii di mais loolu maa yay tëdd sama kër. waxal rek xoola ma wax la benn affaire dafa am lu nekk ak fu ñu koy waxee terewul kilifa di kilifa. Mhm. am na ñoo xam ne nii tey li leen tiwaawoon daal ma wax la ko pour wax la ko ak suñu événement yi ak suñu kilifa yu baax yi ni ñu sampee woon affaire bi affaire bi ñu ngi koy bëgg a ñàkk ndax wàlliyaan yi mhm. dara nag soo ko amee te xamoo ko yaa ngi dégg. Mhm. nga ñàkk ko te nga ñàkk ko nga ñàkk ko te xam ko moo gën. macha allah. tey jii ñu ñàkkoon Serigne bàmba te xam Serigne Bamba moo gën foofu ñàkk alaaji Malick te xam ko moo gën am alaaji Malick am sëñ Touba am ñooñu ñëpp te xamuñu ci dara tey jii xoola amul kenn ko xam ne mitrise ñi ñu maîtriser woon sëñ Bamba buñ dee ba jeex ñun ñii xamuñu ci dara ñenn ñi xamuñu ci tus alaaji Malick tamit ñenn ñi xamuñu ci tus yaa ngi dégg bu dee da ngay jàppale Maodo ci gàmm gi laa wax de mhm. da ngay da ngay fexe ba yow sa kër man sama suma kër maam mi ngi tiwaawoon <laughs> xam nga nu sa maam daan def rajo yi lay lijjanti bi bi sëñ Mansoor daan kii xam nga sëñ Mansoor moom guddi gi day commencé jàpp jàpp yonent bi ba fajar rajo yi la sama maam daan lijjanti ba mu nekk ci biir kër gi bu sëñ bi sëñ bi bu commencé ba nu mu jeexee ñëppay toog meew yi di naaw fee ataaya ji naaw ngay déglu maîtriser yonent bi